abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes ça se ne bien et am ay xibaar. dal leen ak jàmm seen seen bii FTTV Sénégal qui di Amadou Ba Pastef yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci commission d'enquête parlementaire bu député yu wàllu ak député yu Benno Bokk Yaakaar sàkk biir assemblée nationale. ngir ñu daal di saytu ndax ba ñuy invalider candidature kii di Karim Wade biir conseil constitutionnel ba ñuy amal li ñenn ci sept sages yi dañ leen a corrompre woon waa wala déet ne si li bu benn sénégalais xalaat que ne kii président Macky Sall mun naa am foofee ab prox ndollu daal di fay jaaree ne day dissoudre conseil constitutionnel. ne lu tax mu wax li moom mooy que ne boo demee ci article six bu constitution ci réew mi di Sénégal kookee Vous xamlé que né président de la République ab institution constitutionnelle noné noonee la assemblée nationale nekk ab institution constitutionnelle waaye tamit noné le conseil constitutionnel nekkee ab institution constitutionnelle donc né du un décret bu mëna bayé ko ci président de la république vice président Macky Sall mo mëna dissoudre dissoudre conseil constitutionnel suspendre fonctionnement au conseil constitutionnel la wala mu daal déloger benn membre bi nga xam ne dafa bokk ci membre sept juges yu nekk biir conseil constitutionnel mais pour ñu mën a supprimer conseil constitutionnel ci réew mi di Sénégal faaw ñu tëggaat constitution bi amalaat ab référendum wala ñu daal di tëggaat constitution bi ba noppi daal di amal ab vote biir assemblée nationale te ci li ni mel pour vote boobee daal di antu faaw trois cinquième ci député yi daal di voté daal di dëggal que ne dañoo war a supprimer conseil constitutionnel du réew mi di Sénégal la loolee soo ko daal di mën a antu abonnewul ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di ay xibaar